moom it fa mu nekk bég na euh, ñu ngi lay nuyu président euh, bég lool euh, ci participation bi tey ñu ngi wëndeeloog sénégalais yi waaye xam naa ni fa nga nekk war ngaa miir bu baax a baax a baax alaaji Cheikh Far Cheikh maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci émission bi déjà ak tey thème bi jërëjëf di nuyu Mamadou Mbaye Garmi di ko nuyu di ko félicité moom tamit ndax balaa lii di xew muy wëndeelu dimanche ñëpp ci RFM la nekk di ko déglu moo tax bu ko deful sax dañ koy woo di fa waxtaane musique traditionnelle mhm. ndaana yu mag yi kër yu mag yi lépp ci mu rafet kon gar mi maa ngi lay félicité ndax euh, émission rajo boobu moo indi lii. mémoire du Sénégal. waaw. di nuyu <coughs> professeur Lamane. ñàkk ko am wóorut. di sunu mbokk waaye di sunu sàkk. Mm-hmm. bari na yu ne ci réew mi. yoo xam ne bu ñu ko jaaralee ci moom réew mi yëpp dinañ ko mën a dégg. Mhm. mi ngi koy wane di ko féliciter encore ci liggéey bii muy def ci communication Covid bi. Mhm. di faram-fàcce li scientifique yi di wax. Mhm. di ko wax waa réew mi nii ñaa koy gën a dégg. jërëjëf professeur li ngay wax nag da nga koo xam. ki ngay waxtaanee tey da a bokk. bu ma jógee ci professeur maa ngi nuyu buur géwël euh, buur géwël puissance foofu nga jàpp puissance kër géwël nii la daan demee kër géwël dañu ne àdduna il faut un peu de tout pour un monde mhm. ci biir kër da gis professeur Mhm. da nga gis ki yore ambiance su kër gi mhm. da gis kiy gëstu di gis kiy tette ak kiy aar kër gi mhm. yow nag da am solo ci biir kër gi am léegi léegi léeg léegi léegi nag gaay yi gaa yi téye ndax euh, ki nga xam ne moo yore antenne bi xam na bu baax ni muy def ci ci des nag moom du ko sax nuyu ci mooy man may moom rek mbay jëy fay mu wiee seng mu daaro foofu nga toog foofu nga war a toog sa biir kër nga toog euh, Pape waaw président li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw dëgg la ñun lii la ñu am ba ñuy way di ñaan di wut satellite di wut télévision ah. danoo bëggoon télévision bi ñu ciy wane ñu mel ni ñu njàgambay njàng mi continue di law jaar ci ñun mën a wàcc xale yi ndax ku amul valeur ku amul cosaan ku amul aada amoo dara te réew mi dafa am ñaari yoon genn gi mooy sunu yoonu bopp boo xam ne moo fi ne ba léegi te dañu fi te ñu leen ciy gërëm mm-hmm. beneen bi mooy dañu amoon colonisation mm-hmm. Mm-hmm. colonisation ñëw ak làkk. Mhm. Pape Cheikh mi ngi koy wax léegi. Mhm. nee na ñun suñu xale yu ndaw yi dañuy màgg ba sept ans. Mhm. bu ñu demee ba sept ans lañ leen di soog a yóbbu ci école tubaab. tubaab boobu moom bu juddoo rek mi ngi ci tubaab. Ah. rawee nañu sept ans. <laughs> kon fu ñu dajee ak ñoom mën leen xam ne ne suñuy valeur moo ñu koy jox. loolu dafa am importance donc émission bi am na solo. Mm-hmm. am na solo li ma ci bëggoon témoigne nag pour bàyyi mm-hmm. euh, antenne bi ndax ñi bëgg woote bare nañu. kilifa yi bare na. di nuyu euh, njabootu sama nijaay Njaga Mbay mm. di nuyu waa Tattaguine waa Tivaouane Sénégal yëpp. Mm-hmm. di wax ne que li ma bëggoon a wax du ma ko sax mën a wax. wallaay doo ko mën a wax damay ñaan rek benn affaire. Mhm. te ma wax leen ne que bés boobu laa wóoloo sama bopp. laa sentir que ne mën naa gën a xuus jàll. Mhm. muy bés bi ma dajeeg Ndiaga Mbaye mhm. way ba mu fekk ma ci loge bi. way mu fekk ma ci loge bi ne ma mën ngaa ñeme. Oh. bés bi gën naa ñeme bés bi bu la ca topp rek. xaw naa gën a am fit tuuti. yaa ko yóbbu nag jërë ngeen jëf. ñu ngi suivre di sargal bu baax. wëndeelu daal. Hmm. mbaay mbaay wëndeelu mbaay mbaay xalam la njanga doon wooyee. jërëjëf yaa ko yóbbu instrumental. <laughs> aj ko ca kaw wane ko yow la mu ne la Youssou noo ko bëggee nga ne ko nga yàgg fi laa ko bëggee nga yàgg fi rek laa la bëggee loolu nga ko wax mu la ko. sama doom ji noo ko bëggee sama jarbaat noo ko bëggee Youssou noo ko bëggee mu ne la nga yàgg fi rek ne la nga yàgg fi laa ko bëggee mu foo ko bëggee ma tegal la ko faa nga ko namee ñu dem wul naa la ah. wóolu naa la am nga teraanga. ndeysaan yu solo xew. ndeysaan. yaa ki ma saf yaa ma leen gënal. ka jubóo. bilay wax nga dëgg. way nga gaynde de. rafet na loolu loolu sax loolu la ñuy.